askan bu taxaw taxaw jonn fas yéene jàkkaarloo ak nguur goo xam ne nguur gu mànduwul la nguur gu dëng la nguur guy jaay doole la nguur gu bugg faagagal askanam la nguur gu bugg imposé imposer dictature la askan gu mujj mu musa taxaw te dëggal boppam amul askan bu xaj ci nguuram amul ndax nag waxoon na ni li fi amoon du fi amaat man jàpp naa ni lu raw li fi amoon am na te nag du lu ñuy bàkk wala lu ñuy rafetlu ndax li yàqu ci réew mi bëri na li taal ci réew mi bëri na lii lépp mënoon na ñàkk waaye liñ ciy jàngat rek mooy askan gu taxaw ne du ma nangu bu mu njaam gi nga xam ne jógewul bitim réew bii paa waaye biir réew mi lañ ñu ko bëgg a askan gu taxaw rek xajul ci nguur ñu leen ciy jaajëfal ci seen taxawaay waaye it di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ ci ab mbokk di dellu masawaat it ñi nga xam ne am na làng yu réy luñ ci topp yu leen yu leen jural loolu nag ci nguurum Macky Sall amee rey nit yomb na leen loolu tey rek gis ngeen fële ci na war nañ leen ay image yoo xam ne nit mënu ko jàkkaarlook moom xool ko te du am lu wàññi ko ci moom muy alkaati yu jël balu fital dóor ko ci bopp ab xale boo xam ne doon manifester yoru lu dul ay xeer loolu mooy nguuru Macky Sall te loolu day ñëw yokk ci yeneen ak yeneen yi nga xam ne faat na leen diggante mars 2021 ak léegi te àdduna bi yëpp gis ko ba département d'état américain def ci rapport euh, ay organu Nations Unies def ci rapport ñu koy wax nag ni su mujjewul yi dina mujje fii ci ay juridiction Sénégal mu wara a layoo nag ci bakkan yi mu faat lu ak loraange yi nga xam ne teg na ko ci Sénégalais yi lii yokk ci mbirum milice yi ñëpp gis ko ay nit yu mu jël ñu leen di jaxaseek police bi ñi ñu jox leen ay yat ñi ñu jox leen ay jaasi ñenn ñi nag ñu jox leen ay fetal ak ay grenade lacrymogène loolu jaaxalul sénégalais yi jaaxalul ndaw ñi ndax fi ñu toll kenn ku ne xam na li ko mbir mi jaral may gën a soññaat ndaw ñi di leen encourager ne leen nag milice yooyu na ngeen jàkkaarloog ñoom te ku ngeen ci jàpp yi xam ngeen li ngeen def ak moom parce que kenn du fi joxe boppam ñu sacrifier ko ci caaxaan di massawu ñi nga xam ne gaañu nañ si waaye di masawu it ñi nga xam ne tey teg nañ leen loxo du lu ñuy rafetlu waaye yeew yeewee boo gis ci aw askan dafa am fu mu jaar dafa am ay sacrifice yu mu laaj man mii de Ousmane Sonko nee naa leen sacrifice buy am man maa si jiitu parce que jaral na ma lu ne jaral na ma sama bakkan bi waaye suñu réew bu ñu ratee rendez-vous bi dina jafe trop. ñu dabwaat loolu moo tax kuy xeex rek yow ndaw mi yaa ci war a jiitu ñëpp ndax sa avenir la à court terme à moyen terme et à long terme ndax àdduna bi xaaratuñu te mënatoo dem Europe mënatoo dem Amérique te sa réew am nga fi loo xam ne buñ ko tegoon ci yoon nga am naataange ba faw kon bul nangu ñi la naan yaa perte li ñu la naan jaru ko ñi la naan ragalal bul ko nangu mukk sa avenir moo nekk en te mën nga am li nga bëgg yëpp ci biir réew mi yow liggéeykat bi mën nga ko am yow transporteur mën nga ko am yow baykat bi mën nga ko am yow keneen ak keneen su ma limee rek mun naa lim secteur yëpp kon amul lu war a tax ñu deltu gannaaw